dëgg Paco Jackson lu ko booleeg sëñ Tuubaa waaw mais xam nga nit li koy booleeg li koy jëriñ ci yàlla la man sëñ Tuubaa dama am cër ci moom parce que soo xoolee sëñ Saaliw maam la ci man ni Cheikh Oumar yu nekkee maam ci man ni sëriñ Xalifa Babacar si nekkee maam ci man li ma bokk kii loolu laa bokk ak donc euh, xëy na nag àdduna doon na dem teelu ma ko xam mais bi ma ko xamee maa ngi ciy béy sama waar maa ngi ciy dox. Paco tey kenn mënut tudd Serigne Touba te lu tudd Serigne Saliou sa diggante ak Serigne Saliou. ah laaj nga ma loo nga xam ni nag yàgg naa cee wax Serigne Saliou day kéemtaan parce que man bi ma koy xam États-Unis laa nekkoon nekk ci ay caaxaan ki tappale mu gént ko xaw ko sax. mënu ma la wax parce que doomu sëñ Touba yi sëñ Abdou Lahad laa ci xamoon parce que moom moo ñëwoon parce que man ak doomu Ndiouga Kébé ay xarit lañu ah temps yi gën a nekk xale moom moo ñëwoon Ndiouga Kébé defal ko ganel su mag xam nga donc euh, fan résidence donc moom rek laa xamoon xaw ma woon beneen doomu sëñ Touba donc ma nekk Amérique gént ko mu ne ma ñëw seet si ma mu wax ma ko ñetti yoon bi ma ko waxee. ماني من دال ما قسم بين خريط من قم من دال فم بين سرين دال بوما نول توبا ستسيما نول توبا ستسيما من ما كان وان لدوم سن توبا بس كه خم ناسن توبا من ما كان وان لدوم سن توبا مي وانا دما وان سن فالو بيك سن سالو من كوكيلا بارك سيدنا محمد après mi ne ma tey ngaa dem man ko woy damay dem fekk temps yi soo ma gisee sax du pako bi maa ngi def ay curly ba sama karo yi daan xam nga teintre sama karo blond xam nga takk jaaro xam nga rek àddina di dox comme nooy doxee ak duna xam ba yàlla daf ma yegg dem Touba seet si ko jour bi may yegg ci moom sax mi ngi tombe màggal maa ngi tombe juste màggal mi ngi sol benn baxa bu bleu li may wax nii ndeysaan am na benn euh, ki ma yóbbu ci moom ñu koy sëñ xaadim Lo ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm seddali yaxam moom taal bi sëñ Abdou Lahad da woon mais dafa jaxasoo woon trop ak sëñ Saliou jour boobu fekk naa fu ñu bëri mën nañ ko seede sëñ Saliou bi ma tiimee li mu njëkk wax ak ni màggal gi kiiwee ah, ni amee doole mais bi ma kilifa gi yóbboo ba ci moom li mu njëkk wax bi ñu tiimee ba tiime nii nu la lay tere julli fekk toog naa sept ans julli wu ma wooru ma xaw ma dara ci affaire yàlla si laa xam ni docteur nga seeti ko li lay metti mu wax la ko te xoolagu la consulté gu la kookoy lan loolu lan la am na yenn yoo nga xam ne xam nga tey mënuma jóge ci yenn famille religieuse yu mag parce que sët laa ci kenn mënu ko weddi man sëtu sëñ Babacar Si laa bu leer nañ sëtu Cheikh Oumar Foutiyou laa bu leer nañ kenn ko lam lame comprendre nga mais jékki-jékki yàlla boolem ak Serigne Saliou borom jamono loolu kenn tànn na nañ ko laaj suñu borom tey mënoon laaj tey pourquoi lu ko Serigne Touba Cheikh Saliou defal. la ilaha illa kooku moo tax muy julli te julli mënoo ko fay yàlla nee na loo mënti def te julli gi nga teg ko sa julli su baaxee sax nga dem àjjana tax na ma xam kuy Seyduna Muhammad bay bay bay bay jël samay xéwal di ko def ci ay gàmmu di dimbali ni ñi te Muhammad tax sallallahu alayhi wa sallam tax na ba man xaalis bi mu njëkk am dama ko dem barkeeloo ko tabax ko jàkk joxe ko àjjee ndax sëñ daf ci man dindi ci man lu bari ay beew ay réew man comme noonu ni naa toog man dugg ci xelu kom xel kom yi quarante cinq quarante sept degré di xuus di gob ak a bay barki yonent yi nga xam ne su ma we laalee sax ma daw wañ su ma laalee ma daw na nga xam sëñ Saaliw du nit dañ koy wax te dee li la yéem rek yéem na la te man nag dama wër àdduna wërgal képp toog lu ne gis naa ko benn nit a ma yéem sama àdduna mu borom njaareem li nga koy fayee bokk na ci li nga koy jëfal bisam bi saa bu delsee di bés bu tiis ci yow. waaw parce que ba pare li gën a garaaw mooy max moom dañoo bokk bés man sama anniversaire 28 décembre la moom 28 décembre la làqu te dama ko doon feete ci ay boîte de nuit léegi yàlla dimbali na ma ba chaque vingt 28 ma def vingt 28 kaamil daf rey ay nag yow ñëw nga fa. ay ñoom Cheikh Diop Mbaye ak ñeneen ak ñeneen loolu ma du ma ko wax suñ demee Médina laajte su sëñ Saliou chaque 28 décembre loolu ñëpp xam nañ ko xam nga sëñ bi nag ñu ngi koy santi di ko gërëm parce que aw ma fayam parce que nekk ci yoonu yàlla moo gën nekk si yoon bu neen bu dul yoonu yàlla te yàlla mooy fay sëñ Saliou c'est une réalité dafa nekk lu palpable balaa nga koy xam nag barke Seydina Mohamed mu sekk ak yow Yılım anı